seen defante boobu comme da ngeen maa wax ñu yem lu waral ñuy defante ngeen di ma ko laaj defante seytaane moo koy indi yenn parce que ñaar ñu bu yàlla may kenn ku ne wërsëg bu ñu sañoon kenn ku ne yaay bokk lal bay tëdd waaw lii di waxi dof waaye nag deuxièmement bu ngeen gisee ñuy defante di conférence am fa ŋaayoo am fa ku ne beeroo kii séparation kii féete fii kii féete fële loolu da ñaan yàlla yàlla boolewaat leen wala ngeen def en réunion six cent personnes ngeen dem seeti Wally Seck ak euh, Pape Diouf ngeen jubale leen ndax sénégalais yoo mën naa jubal ok bon man euh, Wally Seck na moo gën a nekk sama fans quoi.